dafa naan jullit moom sañ na euh, fagaru ba pare ñaan ñaan gi nag moom mi nga xam ne moo xam ni mu koy defee Mbàkke moom woote na ko te wax fa dëgg yàlla moom ci fagaru ba la jiitu te moo ñu si jàppale moo ñu dimbali bi Covid bi jëkkee ñëw ñëpp xam nañ lim ci def bi vague deuxième vague bi ñëwatee jumtukaay yi ñu war a fajoo lu ci nekk jàpp nañ ba troisième vague bi nii mu ngi ñuy jàppale ci wàllu faj bi ba bërki démbal lañ ñuy jox ay extracteur jox ñu yenn matériel yi pour mu jàppale ñu ko pour ñu dimbali malade yi ñu mën leen jël en donc wàllu fagaru bi nga xam ne ñun moom lañ féete woon sax moom mu ñu ci dimbali loo xam ne kenn def ko waaye mu ëlbatiku waati woote pour nit ñi ñëw ñaan donc bu loolu amee nag ñuy ñaan nit ñi kon ci biir ñaan googu ñu bàyyi xel fagaru bi mooy moom joxe na ndigal ne ñëpp nañ takk masque donc ñun mënatunoo def lu féete kaw loolu lu ñu wax waxaat rek lay doon te moom waxam doy na sëkk mbàkke euh, ginnaaw loolu ñuy wax nit ñi ku ci nekk boo mënee au delà de yow sa masque bi ngay takk nga fexe ba euh, boo mënee indiwaale ay masque yoo xam ne dangay may ku amul ba maase ci takk masque nem ndigal la ba pare it mu bokk ci li ñu digle pour fagal bu loolu weesoo ñuy ñaan nit ñi raxasu bi dinañ fexe ba ci dëkk bi fu ci nekk ñu am ay lave yu mag yoo xam ne fu nit ma ndax euh, alcool gel bi friction bi baax na waaye raxasu bi da ko tamit daanaka dañ naan moo gën donc ñuy soññ nit ñi ci ñuy raxasu buñ demee nag ba nekk foo xam ne mooy ñu raxasu ñu doo ko def

ci ñi muy faat ci ñi muy sonal ak système de santé bi dañuy sonn sonn koo xam ne daanaka docteur dootu mën dara vraiment ñuy soñaat nit ñi bu loolu weesoo tamit di leen wax ne dinañ teg ay bu fajukaay yu jege jumaa ji jege penc yi pour képp ku yëg dara sa yaram bu ko bay bayal ndax dajaloo moom saa yu amee rek am na ñoo xam ne dara mën na lañ bañ a dal sax bu ñuy dem waaye bu ñu yeggee tàngoor beeg xat-xatloo bi mën na tax yee ci ñoom ay mbir yoo xam ne ñu ngi leen ñaan lu ci waay yëg bu mu xaar na jege barabu fajukaay yooyu boobu fa yàlla ñu mën leen taxaw ilal kitaabi wal hadiisi sarafa